sànq publier naa ni leen jeudi bi passé am na ay xale Ziguinchor des jeunes de Ziguinchor dugal nañ leen ci bato bi bato bii def Dakar Ziguinchor pour ñu ñëw Dakar xaar ko fa parce que nee na cooki feeñ ca Dakaru la ñooñu ngeen ngeen yóbbu noonu une deux presque deux cent jeunes dañoo enregistré ci embarquement bi xam nañu leen identifier nañ leen parce que bu ñu leen ne ciip jàpp dinañ ko def xam nañ ne da ngeen am beneen convoi bu war a am bu war a dem tey dimanche bi à 14h pour egg euh, euh, Ndakaaru lundi à 6h du matin ñu ngi leen di xaar. sama gars yi gis ngeen ba mu ci procès ba waa Ziguinchor dañoo baare woon yoon wa am ñu nga xam ne ñu ngi buntu këram nee nañ yeeyaay ñu ngi buntu këram euh, di ko di ko garder rien de naturel ña ëpp moom da leen di fay di leen di journal di leen di fay par jour. ñuy pointé déggoo leen ma de xaar ma wax leen ñaata lañ leen di fay may leen ma tuuti jeunes ya nekkoon ci buntu këram di ko garder rien de naturel ñu ci bari daf leen di fay par jour ñooñu di pointé journée bi bëccëg bi 2600 la guddi gi 3500 la Ousmane Sonko doon fay xale jeunes yi ñu ci ëpp nag ñuy signé di pointé mu am ay femmes yi leen di toggal ñuy lekk. togg bi sax ñoom ci boppam nëbbuñu ko mun naa leen wax vidéo bi togg bi ñoom nëbbu nëbbuñu ko bàyyi li ma woon leen vidéo togg bi. asalaamaaleykum waa Sénégal ñoo ngi leen di ziar di leen euh, de gis ngeen faami donc il faut gars yi gën a jàpp ci combat bi gën a taxawul. voilà ñu ñëw ci procès bi procès bi jàll na wax ji bari na. procès bi dafa gën a yëkk yëkkati coow li ndax ñi ànd ak Pastef dañu jàpp ne y a pas de preuve ñoom ñëpp dañu doon xaar vidéo ak tamit ay audio mais procès bi ci boppam baax na ci parce que incohérence yi ñu doon wax depuis deux ans et demi dafa gën a fës culpabilité Ousmane Sonko dafa gën a fës ndax viol réellement am na moom la digganteem ak Adji Sarr waaye y des incohérences Ousmane Sonko fen na te dafa leer viol am ou pa dem na fa am na lu mu sekk ak xale bu jigéen bi moom laa njëkkoon wax depuis le début il aurait dû être responsable un homme responsable bu dee violé ko waaye sa gel la woon nga génn wax ko assumer defu ko bu dee viol la nañ ko condamné kon aji Sarr am dëgg mais fii la wax ni boo euh, euh, euh, Beauté dafa am agrément ci procès bi lépp leer na Sweet amul agrément wu euh, euh, salle salon de massage agrément bi mu am beneen salon bu nekk Wakaam agrément bi mu am pour affaire esthétique du pour massage thérapeutique dafa am massage bànneexu am massage pour faju moom Oussou Bébé dafa ne dafa dem Sweet Beauté pour faju da doon utiliser ay graisse yu béy ndeyam da ko doon jox graisse yu béy ba mu nekkee xale waaye la muy yëg ca yaramam jour boobu la mu yëg ca yaramam mënuti ko supporter moo tax mu dem Sweet Beauté pour faju ndekete kenn faju bi pour chocolat mante la ak neex-neex waaye du pour ay ay ay problème ay problème mu yàq kon foofu leer na ni Ndeye Khady Ndiaye est-ce que am na diplôme mu thérapeute nekk comme kinésithérapeute déedéet Ndeye Khady Ndiaye amul diplôme bi. laaj nañ Adji bi Sarr est-ce que am nga formation pour def nekk masseuse di def massage thérapeutique mu ne amul formation bi kon foofu Ousmane Sonko fen nga ku fen benn yoon mun nga fen ñaar ba ñett Ousmane Sonko bu ngeen fàttali dafa newoon dafa leen dafa ñëw toog jox leen doq bi ne leen 10 minutes laa leen may 4 mai ci biir procès bi même seeni témoin ay Ba su ma waxul na dix minutes la fa def Adji Raby Sarr elle toujours été constante defu fa dix minutes Ndeye Khady sax ci boppam ak jëkkëram nee nañu def fa dix minutes Ousmane Sonko laay waxal waxuma ak bojo bojo yi waa Pastef yi dof yi Sonko yow laay waxal Adji Sarr nee na bés bi nga ñëwee woon le 2 février ba nga ñëwee woon Sweet Beauté bala ñoom ay Aïssata Ba ñoom ñu maase la ba pare yaa ngi toog ci kaw taabal bi moom également mu am fu mu toog sol benn o bu gàtt bu tuuti bu ndaw kese la sol yow yaa ngi ne dungu dungaaral tout nu comme un verre de terre jour boobu jéem nga ko kii mu jox la lex bi nga jéem ko fóonaat mu jox la beneen lex bi jour boobu la fa doon xew jour boobu la xew du ma dugal jeneeni indi toog nga ci kaw table bi ne dungu dungaaral solo dara tout nu comme un verre de terre yow Ouzou Bébé moom it mu toog sol benn lu gàtt oo bu gàtt sol loolu kese la sol nga koy jéem a fóon mu jox la benn lex bi nga jéem ko fóonaa mu jox la benn lex bi am na la ngeen fa wax am na lu xew da toog après massage bi ngeen toog la fay xew bu jour boobu la xew te dafoo reewoo sax ca audio ya am na benn moment boo xam ne yi moom Adji il faut ma am nu ma ko kii yére et euh, am na benn moment mu ngi lay expliquer duma duma duma wax ci vidéo wala ci audio bi parce que damay xalaat parce que bëgguma gars yi di kii am na benn moment mu ngi lay wax ni la sama yaay parce que moom yaayam gaañu na mais dafa am ay mbokk yaayam ay sëru yaayam ñi nga xam ne ñaar kenn ki da koy ooye yaay mu ngi la naan sama yaay bu yëgee ne vierge tuma xaw ma nan laa ko koy waxee yow yaa ngi koy expliquer yow Ousmane ko nekk affaire yu xew yi yooyu bu ma waxati waxu waxu affaire ay mbir yu xew yi yooyu loolu xew yi naa ci audio bi mu ngi lay interpeller ne la ni nga koy jëlee ci ginnaaw am na yoo xam ne bëgguma mu mel ne comme ci procès bi gars yi ils étaient choqués par certains mots live laa nekk te am na yenn mots yoo xam ne bëgguma ko utiliser ci audio bi am na benn moment mu ngi lay interpeller ne la ni nga ko jëlee ci ginnaaw yu fu salte yooyu am na li nga ko tontu yaay kacapaa yaay saay-saay yaay bandi yaay wuyu kooba yi foofu rek laa yem ak yow boo déggee lii di nga xam ne vidéo am na di nga xam ne audio am na dama lay bàyyi nag bojo bojo yi yéen gaa Pastef fii ngeen di xataraayu yéen a xam